mukk ci li ñuy tuddee ay ay détails quand par parle elle met la barre euh, très très te loolu lu am solo la ci débat politique bi alors ñu analyser un peu nag le fond parce que loolu moo ñu gën a li mu wax lan lañ ci mën a dégg <coughs> Aminata Touré wax na d'abord ci waa Benno Bokk Yaakaar euh, moom dafa jàpp ne comme li nga wax sànq yabaate mënul weesu li ñu fi def il y a mois pour ne pas dire il y ñu mel ne sénégalais yi dañoo tuxu noonu la ko waxee mel na réew mi sénégalais dañoo tuxu bàyyi leen ak réew mi ñoom comme ça ñoom rek ñu ne fi bëgg a wax lu leen neex alors que nit ñi fàtte wuñ lu ñu fi def dem na ba ne dañu war a révoquer wala annuler effacer la wax sax complètement la loi d'amnistie bi ñu fi voté woon pour ñii nga xam ne ay xale yu bari seen seenu faat ci seen loxo la la jaar xale yooyu muy wax ne kenn du doot duñu duñu takk jabar duñu seytal duñu ngénte seeni famille ñàkk na leen à vie permettre moom ñii ñu leen di bàyyi ñu ko ne di wax ci média yi. waaw que justice soit faite. yaakaar naa ne loolu tamit mooy bëgg-bëggu la plupart de euh, sénégalais ñi ci gën a bëri que li nga xamante ne ni xew na fi ci temps wu Macky Sall. pas lépp xam naa ne buñ naree topp lépp sax dina métti. waaw mais ñu jël rek juste les trois dernières années au maximum. waxuma nag ci affaire de malversation mais affaire loo injustice yu nga xamante ni teg nañ ko fii ay nit te ci li ñu tegul fenn. souvent kaawu euh, euh, Fulbert Sambou la ñuy joxe ak euh, Didier Badji ñenn ñi di dem bay fàtte sax ce qui est arrivé à Mancabou alors que yooyu yëpp man jàpp naa ne soriwul daanaka injustice yi nga xam ne bokk na ci injustice yi nga xamante nii yu ñu war a leeral la am na leneen tamit loo xamante nii pour man lu am solo la te wax na ko mooy que le premier ministre même bu nekkee assemblée nationale bi defar nañu seen réglement intérieur bu mu fa dem di defi déclaration de politique générale. wax na loolu. wax na ko parce que non seulement man doon naa fi wax ne sax bu ko pré euh, bu ko le premier ministre Ousmane Sonko defee à l' assemblée nationale xëy na moom li mu ci bëgg maanaam sénégalais yi comprendre politique bu mu nar naka la koy defee ak yan moyens yoo koy defee xëy na bu demee ci assemblée nationale bi sénégalais yi dégg-dégg bu mu bëgg ñu am ko ci duñ ko ci am puisque ñam fay fekk. du ñu lijjanti loolu boo nekk boo moytul ay sànnante coquette lañ fay nekkee sànnante ay affaire <laughs> moom wax na non seulement argument boobu mais boo boole na ci tamit également la fekk que assemblée nationale bi lu ñu war a soppi la te bu nekkee ne dañ ko euh, changer ñu toog par exemple euh, euh, durée de vie bi juillet la président dissoudre ko ñu organiser beneen assemblée nationale assemblée nationale boobu di doog a yegsi day soxla également waxtaan ak premier ministre ci politique publique yi nga xamante ni bëgg na ko teg. et c'est vrai. et c'est vrai mais euh, leneen li nga xamante nii également euh, bàyyi naa ko xel ci discours bi. mooy ñi nga xamante nii ñoom la Macky dajale fee te moom moo ne Macky Sall leen yónni foofu parce que nee na APR siège bi ah. benn caabi la très bien maam Birame euh, et ça c' intéressant parce que démb ci laa koy doog déggee ku ko wax ah que lépp lu ñu fa wax Macky Sall lépp lu ñu fa wax Macky Sall benn caabi la siège ba am te Macky la koy joxelu moo koy nangulu ku ko ubbi daf ko neex te yaakaar naa ne euh, wax jooju moom bu ñu ko waxee te ñi nga xamante nii ñoom la ñu koy wax jàkkaarloo ak le régime là ki ñu wax ne moo leen yebal nekk au service de notre président ça pose fondamentalement problème. li ko loolu interpellé na ci autorité yii nii. dinañ ci wax léegi li ko li ko li ko nar a dëggal que ni euh, Macky Sall mooy wax lu mooy noppilu. Mhm. liir naa ci journal laas tey en tout cas benn site moo ko reprendre ma liir ko ñu ne Macky Sall moo woo Abdou Mbow. ne li ngeen wax ci affaire règlement intérieur non li ngeen wax ci affaire u euh, euh, pouvoir de dissolution du président de la République teg leen ko ci suuf ça veut que Macky Sall ba léegi mi ngi ci mi ngi ci jeu politique bi non xam nga affaire idée boobu moom mën ba mu génnee laa ne kii moom xam naa ab Abdou Mbow moo toog néegam rek xam nga mu xalaat ne ñun ñi est-ce que sax naan café bu sabul suukar <laughs> bàyyi leen boobu ne ñun sax est-ce que génn ne xam nga dañuy wax ne dañuy voté ab loi xamante ni kenn mënuñoo dissoudre quoi est-ce que loolu nekkul ci boppu Abdou Mbow kese kese kese kese la jóge te bu ñu nee Macky Sall nee na da leen ciy génne quelque part da ngay comprendre que ne ay waxu dof la leen ne bu leen ko waxati ci public bi ci sama tur ci seen suñu tur parti loolu loolu mooy wax ji réellement te boo demee sax Macky Sall noonu la ko waxee seen waxi dof yi bu leen ko waxati ci seen parti bi <laughs> xëy rek journa journaux jour journaux yi ñoo koy jéem a rafetal di daan ay dafa jot ay ay ay nu mu tudd ay directives di daan leen euh, comment comment ça s'appelle euh, bu leen bu leen bu leen dugg ci euh, loi boobu teguwul ci yoon mais ku xam Macky Sall xam ne du noonu la leen koy waxee donc pour dire tout simplement. nu leen koy waxee comme ni ma la wax sànq rek wax dafa yooyu bu leen ko wax waxati ci siège bi. <laughs> arrêtez-moi tout ça. waaw arrêtez-moi tout ça moom mën na ko moom. arrêtez-moi tout ça loolu la koy waxee bi <laughs> donc nga comprendre que euh, euh, euh, quelque part donc bu ñu nee Macky Sall moo yor caabi bi moom moo leen di defloo moom moo leen di bàyyiloo mais également nga seetlu ne. te Mimi Touré def na la remarque ñi nga xamante ni ñoo toogoon foofu di wax amu ci kenn koo xamante ni à un moment Macky am na nawloo bu mu la nawloo Seydou Gueye moomu gouvernement bu ne jaar na fi mosul am portefeuille ministériel. waaw à part ministre conseiller. secrétaire général du euh, waaw yooyu la fi am donc mu leer na ne tey jii nii bu nekkoon ne dañuy def cla euh, dañ doon euh, comment dire joxuñu responsable yi gën a féete mag ci APR. ñi gënoon responsabilité en tout cas ci seen parti boobu seen 12 yi amu ci kenn koo xamante ni yaa nga fa woon démb di euh, bërki démb di bokk ci seen wax jooju. ce que dit Aminata Touré est tellement vrai que ñi euh, ñi ànd ak euh, amadu Ba. en tout cas buy buy dem fenn. Mm. ñi ànd ak moom ngay gis ne sax ñoom am na ci ñoo xam ne yoroon nañ ay portefeuille ministériel. Mm. mais ñii daje permanence su woon dara boobu yoruñu ab Abdou Mbow de xam naa nekk na assemblée <laughs> waa waa Benno euh, comme dit Aminata Touré dañoo a noppi il n'est pas question ñu yaakaar ne réew ñoom. ah déet nañu kon ne wax <laughs> que man man nag dama dama foofu moom bokkuma ak moom gis-gis nañu wax rek parce que loolu mooy démocratie aussi. waaw démocratie rek ku bëgg a wax wax béy sax boo koy naree rendi sax muy yiw waxtuma la nag à plus forte raison koo xam ne xanaa xamoo ne la meilleure manière de se défendre c'est d'attaquer te loolu président Macky Sall xam na ko moo tax bi mu turee waxee ne moo leen di wax loo elle a parfaitement raison que xam na ne Macky Sall xam na lu mu def si réew mi balaa muy dem loolu nag laaj na mu am ñoo xam dañ ko toogal fii di ko tontul parce que bu ñu bu ñu waxulee ñu ne ah kon nii rek ñu teg seen kaw yëpp dëgg la. bu muy jël ay man waxatuma sax ay euh, cette cette loi d'amnistie la loolu moom ku nekk xam nga ne loolu c'est une boo xam ne parce que dégg naa barke Demba rek c'est c'est euh, boo xam ne waxuma la amnistie mais c'est une pour créer l'amnésie dans la tête des Sénégalais waxatuma la ñun fi rey ak dégâts yu ñu fi def am na benn waay bu ñu woo keroog euh, fële ca dikk di ko enquête. am na question bu ñu ko posé mu nekk ko du tontu parce que loolu loi bi. Euh, effacé na ko effacé na ko. voilà les dangers de cette loi là. ak neex. loolooy danger bi nag maanaam yow mën nañ la convoqué suba wala gannaaw suba si benn affaire ne la yaa waxoon lii nga ne ah déet ma tontu amatu ma droit tontu parce que loi bi on a voté une xam ne daf ko effacé. waxatuma la mais léegi. Ismaïla Madior sax a dugal. ñaari gendarme yi mais bien na ko fi yaa ngi dégg. en faisant allusion à la disparition des de des gendarmes là donc c'est cette loi là véritablement dañ ko war a defaraat li fi Macky Sall bàyyi nag comme ay dégâts jusqu'à bëgg jël suñu ndox mi sax yokk ko à quelques jours bu dem ne ndoxu Sénégal dafa vraiment cherul bu bëgg ko yokk ba loolu bëgg a indil président Diomaye ay problème parce que loolu la war a nekk. parce que boo demee ba yokk ndox mi. fi ni ñi di fayee ay ay ay ay ay ay dix mille wala vingt mil nga yóbbu ay cent dix mille comme man mii di wax ak yow cent dix mille facture cent dix mille <laughs> euh, ndox. soixante ndox ndox. pendant ce temps je paye facture d' électricité fait vingt mille ma facture de ndox soixante dix mille. soixante dix mille électricité lu ñu la jox vingt mille. vingt mille kaay ñu kaay ñu weccoo kaay ñu weccoo vingt mille neuf cent. facture ndox soixante cent. loolu jar naa lijjanti. mais loo mais loolu George loolu jar na lijjanti. mel ni waa Sicap yëpp maa leen di fayal. <laughs> ba fayaleel <laughs> ah, ah, man kay fa mel ni sax Barthélemy Dias mi nga xam ne mooy maire bi man wala man damay jaay ndox quoi. <laughs> waaw loolu yëpp Macky Sall teg ko fi dëkk bi teg ko suñu ndond bëgg a dem alors ñu baal ko loolu non non Macky Sall mi mu turee à raison waa ji war nañ ko woowe fii demande d' explication. nga ne ko yow dëkk bi noo ko yore woon. ak li jël nii loi yi nga teg si kaw Sénégal yi foo ko teg. loolu yëpp dañ ko war a laaj Macky Sall. moo tax bi mu turee à part fa raison maintenant waxuma ne ñoom Abdou Mboy du ñu wax bu leen neexee nañu nekk di conférence chaque jour. Mm-hmm. waaye nag nañu xam ne bu ñu yàkkamti xamal lu fu mu nekk nii euh, président Diomaye du xëy rek nee leen dem leen yóbbu kaso kon dañuy nekk di jooy di wax lu leen neex kenn ñun dañu euh, on on nous impose la loi des vainqueurs. mais xaw xamuñu leen di yoot mooy lan. Hmm. ñu ngi leen di xam nga sàcc bu doon raw moom jarul yàq na raw comme ni ma di. kenn du ñoom du maam bir maam da nee na ba waa ji demee seeti sëñ Mountakha jóge fa seeti. kii nu tudd sëñ Babacar Sy Mansour. su ma doon waa Benno damay toog noppi. voilà xam nga ñoom nañu wax rek. assemblée boobu ñuy wax noonu. mais Mimi Touré a parfaitement raison cette assemblée ne représente plus le peuple. Hmm. cette assemblée ne représente pas les cinquante quatre virgule donc normalement boo waxee la l'Assemblée nationale mooy représenter le peuple dafa war a feeñ parce que assemblée bi tey président Diomaye cinquante quatre pour cent de Sénégal ñoo ko voté. oui au premier tour koo xam ne deuxième koo au premier tour lu mosul am am Afrique sax laay wax opposant bu fal premier tour comme ça. bariwul de su léegi nga bëgg mu léegi nga bëgg mu ñëw taxaw devant une assemblée boo xam ne il n'a que quarante pour quarante députés yoo xam ne ñoo ànd ak moom. waxuma sax 40 parce que boo calculer les de Pastef mhm. dëgg-dëgg nga moom mhm. ëpp ñu 40 su ma la déggee d' accord nga ak Aminata Touré que ni même bu ñu changé règlement intérieur bi jarul muy dem parce que lu mu fay wax mooy lan quel soit li premier ministre di fa wax am na ñoo xam ne dañ fay nekk di ko ñàkkal fayda mhm. ñen ñoo xam ne dañ fay nekk di tàccu ñen ñoo xam ne dañ waay ay suite beauté ñen ñoo yoo xam ne finalement ça va noyer le bi nga xam ne moom la a am loolu mooy le c'est-à-dire quand on se met devant devant la représentation nationale dafa war a représenter effectivement la représentation ay conseil économique et social yi tamit ñu dañ leen a war a dàq conseil ah, xaw ma en tout cas xaw ma CCT même chose xaw ma Ousmane Sonko dina dem wala déet mais ce serait vraiment euh, une excellente chose ñu am assemblée boo xam ne euh, bu fa Ousmane Sonko di nekk dafay fekk ay Aminata Touré fekk fa je ne sais pas moi même ay euh,

non seulement Ousmane Sonko warta dem ci bii mais dañu war a fal bu bees ba pare mu effacer c'est boobu la wax effacer complètement la loi d'amnistie bi nga xam ne moo tax tey jii euh, ñu bari ñoo xam ne seen loxo sóobu woon na ci li xew ci Sénégal diggante 2021 ak léegi euh, topp gi di jafe. non moi je en phase avec elle parce que euh, man dama jàpp ni que loi d'amnistie bi c'est une en à l'impunité impunité moom la ñu gouverner 12 ans Sénégal buñ dee après les 12 ans nag impunité boobu dafa nar a mais Moustapha je dis que c'était pas la peine de lire un nouveau président foofu moom dama ci d'accord ak président ak euh, euh, président Mimi Touré. Mhm. effectivement l'assemblée la tey bi ñu demee bu ñu la preuve nañu nañ jël rek benn exemple bu terre à terre très terre à terre fal nañu fii njiit lu bees njiit bu bees bu ñu ko falee mooy maanaam y a une nouvelle légitimité waaw waaw assemblée néanmoins elle n'est pas légitime mais je dis qu'il y a une nouvelle légitimité politique bi nga xam ne moom la euh, le chef de l'exécutif euh, qui euh, mais bu ñu bëggoon tey jàmm dëgg-dëgg surtout nag le jeu démocratique doxe comme le faut mu bañ a am ay blocages yi xam ne mun na institutionnellement Euh, gêner un peu le président wala gêner assemblée ci boppam comme ni mu amee fan avec cette histoire de règlement intérieur ay convoqué du ma ñëw euh, ministre ñëw foofu ñu ne ko duñ et consort mais il faut Moustapha il faut aller vers la dissolution de l'assemblée puisque déjà c'est prévu sax par la loi léegi problème bi je crois que man je rejoins Mame Birame parce que keroog il parlait du 31 bon ma ci doon kii ak moom. mais effectivement foofu maam Birame ak Aminata Touré ñoo fi bokk. gis-gis effectivement c' est quand j'ai regardé euh, surtout le texte de de mon de mon neveu là Ousmane Sané docteur Ousmane Sané j'ai vu que effectivement on parle de l' élection dans le texte dans dans les on parle de l' élection et élection bi c' était hmm. donc à partir de ce jour nañu am mbalaanu kiraay lañ leen reconnaître comme les députés du Sénégal 31 dans quelques jours te ñàkk dissoudre assemblée bi Moussa xam nga lan la mën a jur mooy que ces gens vont continuer à faire leur cinéma nu mu leen neexee. Mm-hmm. déclaration de politico générale ñàkk déclaration de politique générale a chaque fois qu'ils voudront polariser le pays ils le feront <coughs> est-ce que nag dañu nekk nar a nekk ci dëkk bi nga xam ne euh, parce que Georges voilà euh, Mame Birame fal nañ ko tey ji euh, maire de Dakar Georges nee na àndu ci. est-ce que pour autant Georges dafa war a bloquer le conseil municipal de Dakar dañ jël exemple terre à terre noonu quoi. oui voilà donc moo tax ma ne il faut que vraiment qu'on aille vers une dissolution président euh, premier ministre Ousmane Sonko xaw ma dëgër na fit wala dëgërul fit wala ñeme na wala ñeme mais gis nga bu sa bu do bu je veux pas utiliser le terme dof. mais s'il franchit le Rubicon naan day dem assemblée. moom Ousmane Sonko. ci conditions yi. mooy non seulement ce sera un discours improductif effet bi mu doon bi du ko am et bu pare nag on verra les tares justement de ce qu'est notre démocratie. d'accord alors Georges Maïmouna Diouf mu ne li nga wax ci ndox mi dëgg la ñu ngi nuyu également El Hadj Alioune Kadd mu ne euh, Badara Ndiaye également mi ngi fi ak ñun El Hadj Guèye Cheikh Badji Ousmane Sine Théo Rodriguez Fernandez ak kooku de xanaa Rodriguez Fernandez kooku Georges war nga ko xam de.